dañuy wax ci pulaar seeda woodaani ko barke ngóori eeyey mooy lu tuuti amul lu am barke moo am solo saal bi lu muy yaatu yaatu Sénégal lu muy yaatu yaatu tey barke mi nga fanaan fii ci biir Ndakaaru à cause de sama doom sama jarbaat sama xarit Bakane Seck moom dama koy ñaanal yàlla parce que man dama nawloo nit koo xam ne da nga bëgg a tekki dara da nga bëgg a nekk mais soo nekkee na nga xalaat ñi nga bokkal man Baaba Maal di wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni Podor laa bëgg ci sama biir xol parce que foofu laa dëkk foofu laa bokk jërëjëf Adja Kine jërëjëf mais nag su ma nee tey fii barke moo fi fanaan macha allah yal na yàgg fi Sénégal ku ciy jàng école ku nekk l'armée mbaa ngay commerçant mbaa ngay businessman ak loo mënti doon ngay politicien defe naa ni ñii toog ci suñu kanam tey am na lu ñu def ci sa dund am na lu ñu la ñaax ci nga war góorgóorlu nga xam ki nga doon nga xam ni sénégalais nga parce que nekk sénégalais nag yombul mais baakan li ma la nawee mooy lépp loo am saa ñu toogee di waxtaan te dafa am foomate li ngay jiital ci sa waxtaan mooy sa famille bi ña nga bokkal ndey bokkal baay bokk ak ñoom maam te demoo bàyyi leen te leen xalaat te xam nag fi nga jógee di fa jéem loolu man Baaba Maal lay siggil ndax soo meloon neneen danañuy ndaysaan li muy ànd ak Baaba Maal moo tax mu mel nii te boobu du ma neex maa ngi gërëm mu naas gërëm waa kër Doudou kumba Coumba Rose mais nag boo gisee ma sawar tey ci bés bi nii woo woodaani ko barke ngóori mooy wax naa la ko keroog bi nga ñëwee ci sama kër ma ne Hadj Mansour Mbaye xamuñu nuñ koy def ku ma bëggale ci sama biir xol ndax jikko bi mu yor waajur la mu woyof woyof gu dal ni man xale bu tuuti ba xam ne sax wér gu yaramam demeewul noonu ay atam toll nañu foofu mu bàyyi ay itteem ak ay aajoom yëpp fekk ma Podor loolu ku mu doyul dara du la doy te nag deflu ma ko dara mais fu mu toll ak fu mu taxaw ci biir àdduna bi su ma fa teewee su ma teewul mi ngi wax ci man lu baax mi ngi wax ci sama turandoo El Hadj Baba Ndiong lu baax di wax ci ñoom Cheikh Baba Ndiong lu baax di wax ci Aïssa Tall Sall lu baax ah Hadj Mansour dey fëkkul jëf man nag Baaba Maal dama am chance dama dëkk podoor nekk Haalpulaar mais dama ñëw Dakar macha allah askulu ngéwél bi nekk fii sama kanam yëpp ma am les dama bàyyi ma fenn dañ ma jël dugal ma seen biir xol lu ma yëkkati ñu ñëw ñu jàpp si yéen yéen a baax yéen a gore man aw ma seen pay li ñaan yàlla am na ñu ñëwoon Podor mer ngeen dellu si waat ba Podor ba man ak Aïssa Tall Sall ak Racine si ñu yëkkati suñu loxo ñu teeral leen parce que jar ngeen ko bàkkan foo teg sa tànk yàlla fekk yàlla moo la ko baleel ba mu set nga teg fa sa tànk nga jaar nga dem nga jaar merci beaucoup Sala Bigué sama gaay ngeen déglu ma ngir yàlla rek xam ngeen kii sama wërsëg yàlla da ko jaarale ci loxoom mu soxe ko ci sama mag Bada Seck mii toog ndax moom moom moo def ci man doylu kër gii ma jënd diggu yoof ba ma yàlla booleeg moom laa ko am ku xamul samay jaar-jaar dafa metti woon lool waaye moom mu tette ñu rek gunge ñu rek bëgg ñu rek bëggoon naa ko waaye léeg dama koy xool bëti papa ne ko dama la naw bi sama yaay génnee àdduna keroog ay tonu ceeb la indi ay tonu ceeb waxuma la leneen li mu def ba pare mu yar ma ci jom defal nga ma lu ne yóbbu nga ma fu ne sagal nga ma fu ne ku ma gërëm ku dul yow rek sànni naa ko dara safatuma su ma demee ba nga teg tax ma gis na ma gis yaayu Bob marle tey la sama anniversaire te jour boobu sama bësi anniversaire la yaayu Bob Marley sama jour yi anniversaire Miami tax na ma gis joué Wembley ba ñuy xale yu bari soo leen laajee feuille wem xam la ñu ko tax na ma joué Carlos Santana tax na ma joué Taj Mahal tax na tax na ma tax ma joué ak Ernest Ranglais donc kii defal na ma lu ne moo tax musique nit mënatu cee def lu ma lu ma jaaxal moo tax beneen morceau bi ñuy tëjee balaa nga koy tëjee dafa am sama xarit yoo xam ne dama leen naw ndax yow yaa ma yar ci loolu jéy sëy anakaaw ak Lamine mbay sama mag ju baax ji ak Badara Njaay ana doomu Badara Njaay dañoo am benn association bu tudd PEG MES quatorze raison yi nekk Sénégal yëpp ñu seppi ma def ma président bi waaye loolu ñu def nag ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko Saalum Say moo fi taxawal gaay yi Babacar Ndiaye jërëjëf yow mi am idée mi Basirou mbay ñii nag samay nawle lañ yow yaa ma jàngal yaru ak dal moo tax bës bi dama ko def rek ndax sama papa El Hadj Mansour dama ko bëgg lool. benn xale semeetu fa yow Abdoulahat El Hadj kii sama xarit la kii sama xarit la waaw kii dama bëgg nga jàppal ma ko nit ku ma fonkoo ngi nii nit koo xam ne bëggul lu ma métti yow Serigne Touba rek laa lay bàyyeel wax ji du bari lii jërëjërë production ñoo la ko jox Abdou Lahad jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf beneen beneen bi ci tegu kii mooy Badara Ndiaye kii doomu papa Demba Dieye Ndiaye la Demba Dieye Ndiaye bu Louga kii mu ngi Europe kii di jàkkaarloogew mooy Saloum Dieng moom lañ tuddee Saloum Dieng Daga te li ñuy def kenn dax koko waaye kii nag maa ko jox sama papa Badara Ndiaye Babacar njaay moo ko koy nangul léegi nag dañuy tàggatoo dañuy ah vieux amin